téléspectateurs de Rewmi TV ñu ngi leen di jaajëfal dalal leen jàmm seen émission Rewmi People gi di am samedi bu jot tey nag vous avez vu le cadre nous sommes au Grand Théâtre de Dakar ki ñu fi seet si mooy monsieur Kessy Bousso il est notre invité ñu fas yéene ñëw waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moom lay gérer bi les structures nga xamante ni artistes yi bëgg nañ ko lool moom la kon fas yéene jàkkaar lool kon bu ngeen ñu toppee léegi léegi waxtaan gi daal di door. monsieur Bousso salaamaaleykum. Ah, maaleykum salaam maa ngi nuyu Sénégalais yëpp. maa ngi juddoo fu ñu wax dans le de Podor benn dëkk bu tudd Dungalaaw entre Aéré Lawlo ak Madina Njaaj bi. foofu laa juddoo foofu laa màggee. d'accord alors tey jii monsieur Bousso euh, nan nga def ba yegsi tey ci euh, à la tête de la direction donc euh, de ce grand. Euh, de cette institution le Grand Théâtre waaw mais xam nga lépp euh, maa ngi sama sant sama waajur bon sant aussi ki ma fi indi euh, président Macky Sall moom laay gërëm moom ma fi indi parce que man Belgique laa nekkoon def naa fa 36 ans 79 laa dugg Belgique l'an 2012 laa fi laa fi ñëwaat donc lépp lu ma mënti am fii maa ngi gërëm maa ngi gërëm président Macky moom confiance man indi ma fii si si Grand Théâtre depuis quand ban année exactement lañ la teg à la tête de la structure. Euh, defe naa euh, la fi commencé ñëw. Mm-hmm. vers décembre deux laa fi ñëw. Mm-hmm. et depuis lors la gestion se passe comment c'est difficile est-ce que tey jii si c'était à refaire di Macky bu la fi naroon tegaat di d'accord. Ah, bu nekkee Macky Sall waaw parce que Macky Sall d'abord ak lu mu munti doon man du ma man kenn maa fi nekk sénégalais nekk nañ 15 de sénégalais euh, jël man donc je ferai tout mon possible pour mun a def affaire bi mu aw pour liggéey liggéey bu am exactement le travail de la gestion du grand théâtre ça revient à faire quoi. il y beaucoup de choses à faire euh, gestion grand théâtre parce que tu problème la mm-hmm. ah, parce que d'abord setaay bi. xam nga Sénégal yi dañu bari sànni ay kayit donc fii euh, lu gën a am importance bi mooy affaire bi ñu ko war a def pour mu set à cent pour cent aussi électricité bi dafa cher électricité Grande Terre dafa cher complètement vraiment mais alhamdulilah so ñu ngi liggéey mu ngi aw yoon il y a beaucoup de spectacles il y a beaucoup beaucoup de spectacles il y a aussi beaucoup am na ñeneen ñoo xam ne aussi dañ leen war a dimbali parce que bu leen dimbali ils ne seront jamais au grand théâtre parce que aussi de temps en temps si grand théâtre il faut moom kumbam ndey ak kumbamul ndey parce que mënuñu comparer un Wally Seck ak un Jéggi Raay donc bu bu ñu defee noonu rek dinañ ñu ñu grand théâtre donc il faut ñu xool ndax lañ def pour Sénégalais boobu gis mun gis boppam si grand waaw d' accord monsieur Bousso comme ni nga waxee grand théâtre jote fi yombul ci wàllu koom c' pas la portée de la bourse de tout le monde tey jii naka lañ mën a def ba égalité boobu am ñëpp war a mën a ñëw fi prester fii. waaw mais maa koy def parce que wax naa la euh, de de temps en temps bu ñu buggee Sénégal gis si seen bopp de temps en temps bu nekkee xale yi jekk si jóge si village yi bëgg a grand théâtre il faut ñu defal prix boo xam ne bu normal kuy def billet à 2000 francs on ne le compare pas avec quelqu'un qui fait des billets à 100 000 francs wala 40 000 francs donc loolu yëpp dañ koy dañ ko ci seet de temps en temps on fait une mise en disposition pour permettre les jeunes là ñu mën a gis seen bopp ci grand théâtre sans cela à quoi donc ñu dañ koy jox ay ñu jógee Chine ñu jógee Danemark Suède ñu war a joxe salle bi ñu jógee Fouta wala Casamance ñu bañ ñu bañ a ñu bañ a jouer fii non c'est pas sérieux mm-hmm. ku nekk artiste bu fi nekk bu fi mos a ñëw sama baat ci kaw mu gën dimbali naka nga koy dimbale am na ñeneen ñoo xam ne je te donne un exemple ñoom laa gën a xam les boy les jigiraay. Mhm. le moment où il devait payer deux millions cinq cent mille peut-être trois millions il paye un million cinq cent mille une mise à disposition on mille. Mhm. là où il devait payer trois millions. Mhm. c'est non parce qu'ils font des billets à deux mille deux donc la salle ku fi bëgg a ñaata ngay débourser. normalement xam prestation bi bokkuñoo mhm. de temps en ay prestations yoo xam ne amul fay mhm. les gens ils viennent parce que benn société la wala benn nit bu bëgg euh, dimbal mais ñooñu aussi on prend en considération boo ñëwee fekk fay ñu mu ne la wàññil le plus possible mais bu nekkee tu fais bi billets à vingt mille francs ou à trente mille francs attends tu payes la, la, normalement deux millions cinq cent mille plus TTC bu nekkee nag benn jeune bu bu commencé xam ne aussi pour jàppale xale yi jeunes yi on le donne à un million cinq cent <laughs> d'accord mais monsieur Bousso ñu gis ni tam la salle du Grand Théâtre est une salle très convoitée nit ñi dañ ko bëgg bëgg di ñëw di fi jouer ban politique nga teg ba muy attirer euh, les artistes à ce point mais xam nga lépp lu ma mën a am sama nguur art moo ko jox c'est-à-dire j'étais danseur dans le en Belgique. ah oui mais oui j'étais à Moudra Afrique. ma jógee Moudra dem Bruxelles j'étais dans les ballets j'étais dans les centres culturels j'étais dans les théâtres donc xam naa Moudra mais théâtre boo ñëwee Sénégal deux solutions moo ou nga jox ko les VIP ñeneen nga bàyyi ou bien tu trouves une solution mooy que bu bu VIP joué euh, fay euh, je donne comme mon fils Wally Seck bu ñëwee. il paye les, les, trucs à 3 millions ou bien 4 millions, mais quand un, un jeune vient de Goundou ou bien de, de, de, de la basse Casamance, il ne développe qu'à 1 million, 1 million 500 000. Mm-hmm. C'est normal quand mm-hmm. même. Mm -hmm. alors euh, léegi démarche démarche boobu ça se passe comment c'est l'artiste qui vient vous solliciter ou bien. je connais tous les artistes ku nekk xam naa aussi sa sa capacité. Mm-hmm. <laughs> ñoom ñoo xamante ni xam naa xam naa artiste buy commencé xam naa artiste bu buy commencé di yéeg am na artiste yoo xam ne bu ñu commencé bu ñu commencé yéeg ñu yéegal prix a ñëw nga jógee banlieue bi wala nga jógee si région yi ne da nga tey Grand Théâtre moo la ñor euh, mais parce que aussi il y a pas de rendez-vous pour venir voir le le le DG du Grand Théâtre boo boo ñoree ngay dugg. Mm-hmm. fii du jàkk boo ñoree ngay dugg jàpp sa sa yoon ma wax yow lu ma la mën a dimbali dimbali mais il y a pas bu fi ñëw ba ñu suuf dimbali amul. ñoom ñëpp de A à Z commencé ku mag ki bis ku ndaw ki. kon artiste mosul ñëw sol bëgg salle bi sollicité la nga ne ko non. mais non pourquoi ma mais salle bi sama papa moom ko quand même. <laughs> bi ñoom ñoo ko moom bu bu bu ñu nekkuloon fii man du ma fi nekk donc salle bi c' est leur salle c' est pas la salle de Keyz Bousso. Mhm. bon wax yi nag coowkat yi dañ coow rek man amul benn nit bu ma nee na dem Sorano wala mu bañ a ñëw fii ku fi ñëw ñoom ñoo ko jour bële il y a quelqu'un que j'ai entendu dire que dama ko nee na dem Sorano musuma wax kenn mu dem Sorano. ah oui waaw musuma ko wax parce que ça ne kii salle bi moom moo ko gën a moom moo moom moo ko a mhm. mais lu muy toog di wax bon ça c'est ça ça m'intéresse pas ce qui que ñoom ñoo ko moom c'est les artistes ku fi ñëw war na la jox sa sa gëdd nga def li nga war a def. waaw man dama mën a yóbbu kenn Sorano wala wala wala Cissés wala centre euh, culturel non salle bi ñoom ñoo ko moom du man maa ko moom. Mhm. parce que bu nekkoon ñoom salle bi du am. Mhm. donc kooku waxu waxu gars yi rek ay waxu waxu ndumbelaan la amoon lu ndumbelaan <laughs> waaw man du ma wax ndumbelaan mhm. waaw waaw man du ma wax waxu ndumbelaan. d'accord alors euh, horaire yi euh, comme ça de telle heure à telle heure lay artiste di jouer horaire yooyu kan moo koy délimiter. mais attends bu benn artiste sénégalais demee jouer fii centre culturel français. Mhm. il commence à à dix neuf heures wala vingt heures et il finit à vingt trois heures ici on ouvre la la porte à vingt heures jusqu'à deux heures du matin mais ku wóorul de de vingt heures à deux heures de matin. je ferme est-ce qu'il est arrivé euh, nga mës a def lool. je le fais souvent mais maintenant les gens comme ils me connaissent. <laughs> y a pas de problème. yow personnellement yaa koy def yaay ñëw fermer rideau. non les services. non les services mais je suis pas là à fermer les rideaux. je dis euh, moi je leur à partir de l'heure les les les techniciens ils savent mais ils sont là depuis 5 heures du matin de temps en temps ils font euh, ils font 5 jours d'affilée ils laissent leur famille ils laissent les enfants ils laissent leur maman ils viennent ici pour travailler et, et, et un artiste au lieu de venir à 21 heures à 20 heures il vient à, à minuit. Mm-hmm. il vient rester jusqu'à 5 heures du matin non je ferme mes rideaux. Mm-hmm. d'accord est-ce qu'il est arrivé que loolu mettre la en mal avec des artistes. non bon xam nga xam nga xam nga euh, la caravane passe les siens aboient. Mm-hmm. man yàlla moom fi teg ki ma fi teg pour ma liggéey damay liggéeyal Sénégalais yi. Mm-hmm. moi je pense que heure bi heure dafa mun a am. dafa mu sam si si si société dafa am contrat bi ñu bind de vingt heures jusqu'à deux heures du matin si artiste sénégalais bi moom war a def léegi pourquoi les les les les les les musiciens européens quand ils viennent ici ils commencent les les à l'heure ils finissent à l'heure pourquoi ñoom mënuñu def kii boobu léegi c'est même par rapport ak sànni kayit benn nit bu waree fii dafa paresseux pour jël fii si Grand nga nekk si couloir yi da nga paresseux pour jël benn kii dem dugg si benn mbalit donc na sànni foofu wala da gis benn nit bu jël si ngoom taf ko si taf ko si ay ay siège tu trouves ça normal mais normal mm-hmm. man daal heure bu jotee dama ne gars fay seen rideau yàlla mm-hmm. dañ koy loo munti doon loo mu artiste loo munti def à partir de vingt heures jour tu peux ouvrir à n'importe quel moment à deux heures du matin je t'appelle les gens t'appellent les tennis t'appellent deux heures matin ñu wax sa micro yëpp lay lay lay tëj. Mhm. d'accord alors monsieur Bousso depuis votre gestion de du Grand Théâtre lan nga ci gën a réccu. non man réccu ma dara. Mhm. lu may réccu. lan moo la ci gën a neex donc. lu ma gën a neex. ban expérience nga ci dund et que mu marqué la. non. <laughs> li ma gën a marqué mooy bi ma jógee Bruxelles. Mm-hmm. ma téléphoné benn responsable borom doole la si réew mi ma ne justement à partir de maintenant il me faut une garantie locative. Mm-hmm. moom loolu mooy lan. mu ne ma woy yow xanaa man je suis le Baye Fall du Sénégal le Baye Fall du président Macky ma ne ko man de du ma bàyyi Fall Macky Sall mais xaritam la parce que sama doom mu ngi am mu ngi juddoo yaa neuf ans Macky Sall laa ko tuddee tuddee ma ko sama papa tuddee ma ko sama maam mais Macky laa ko tuddee parce que sama dama ko bëgg mais ak lu mu doon boo ñëwee fii ci Grand Théâtre avant ngay dugg tu mu doon gànnaat la wala wala doo dugg mhm. def na bëri yuuxu mais à la fin xam ne si dëgg laa nekk mais bu amul garantie locataire bu ñu tëjee ay ay ay lii kan ma koy fay mais bu mu luyee benn salle euh, Suisse wala wala même Paris tu tu donnes garantie locative bu ñu ñëwee seet salle bi yàquloo ko après gay yi ñu jox la sa caution. Mhm. y' a pas problème. Mhm. mais loolu naa ko naa naa ko def mais c'est bien dërëb yi de nit ñi di yuuxu parce que amuñu habitude boobu mais garaawul. Mhm. lay coow ba mu yaay rek jeex amul benn problème dañ coow mais coow moom xam nga si lañ dëkk. waaw loolu loolu moom ma gën a ma loolu daal nit te encore nitu responsable la quoi. Mm-hmm. te aussi cette personne il avait les moyens vraiment de donner une, garantie quoi c'est ça qui est bizarre. Mm -hmm. plus tu as l'argent plus on te donne une garantie tu tu crées tu dis je connais telle ou telle personne. Mm-hmm. donc pour venir jouer au grand théâtre il faut des garanties. que, que, quelles sont ces garanties et quelles sont ces conditions. les conditions quand tu quand tu loues la salle tu nous donnes ça dépend quel de de pour dire que ok quand tu casses chose on on on le répare avec tes sous. yantaa mhm. amul beneen problème. te si l'a pas. on trouve une solution. si l'artiste peut venir au Grand si l l'artiste a, a les moyens de venir au Grand Théâtre il a les moyens de payer 500000. Mhm. ou 200 ou 300000. Mhm. donc si l'artiste n'a pas les moyens de, de une garantie locative. il vient à Dungalaw dans ma commune. je donne la salle là <laughs> D'accord. Alors, Monsieur Bousso, quelle est votre relation avec Maki Vous avez cheminé bien ensemble bah, C'est sûr que depuis, depuis que... Tu sais, quand les gens parlent, moi, mm -hmm. je suis... Il n'y a personne qui est plus à pair que moi. Je discutais avec des amis, ñu ne ma yow man affaire la man la man la yéen ñëpp doon a affaire ñoom ñëpp amul kenn ku si nekk affaire parce que ñooñu ñëpp dañ leen dàq affaire nag ñu dem defi créer affaire man dama judd rek nekk affaire. musuma dem feneen donc man dama judd rek nekk nekk APR musuma dem PS musuma dem PDS musuma dem AFP musuma nekk fenn man dama judd rek nekk APR donc amul leneen lu ma xam du APR donc kenn bu gënu ma nekk APR. Mm-hmm. et quelle a quelle a été votre partition à son accès pour qu'il accède au pouvoir euh, nan nga ci joué. saabu du fóot boppam mais boo demoon boo demoon Belgique nga laajte. vous avez mm-hmm. mouillé le maillot quand même. waaw il faut poser la question muy am bu ma nee man def naa lii mais boo xam nga journaliste nga. Mm-hmm. boo bëggee xam ndax mu yéen a mayoo wala mu ma mayoo ci euh, téléphone à Bruxelles nga laaj leen ndax kay si musu mu yéen a mayoo loolu rek laa la mën a wax mais man mënuma wax mu yéen a wala muyoo ma. D'accord, je vais m'en occuper. Alors, M. Ah. Monsieur Bousso, tant que Tamneng, vous, vous étiez danseur, ouais. ça nous surprend. Pourquoi Parlez-nous un peu de cette époque. Ben, pourquoi ça te surprend Parce que vous ne <laughs> D'abord, euh, non, j'étais danseur. J'ai fait la danse danseur ici. Danseur professionnel Oui, ici. J'ai fait de danse la danse moderne, la danse classique, la danse contemporaine. J'ai dansé dans les ballets Béja, les plus beaux ballets du monde. J'ai dansé, j'ai fait toute ma vie en Europe. Mm -hmm. J'étais l'un des premiers danseurs ici, danse classique au Sénégal, l'un des premiers. Mm -hmm. Donc toute ma vie, je l'ai fait en dansant. J'avais des longs rastas qui arrivaient jusque-là. Ah oui Ah mais oui. J'aimerais bien voir cette photo-là. Mais je vais te la montrer tout à l'heure, il <laughs> n'y a pas de problème. d'accord alors fecckat boobu tey ci ban aperçu la am ci la danse sénégalaise. non li ma la mënti wax ci la danse sénégalaise xale yi am danseurs yu bëri fii Sénégal foo dem si koñ yi ñu ngi fecc mais je pense aussi leur leur problème que duñ def ay ay ay workshop yu bëri dañuy bu ñu defee benn clip Baaba Maal wala Youssou Ndour wala Wally Seck rek defe nañu star lañu quoi. Mm-hmm. mais je pense que un bon danseur c'est celui qui fait toutes les danses. bu classique moderne jazz traditionnel pour moi c'est ça c'est un bon danseur. pas le danseur de de sabar ou bien de yàlla rek nga toog non. d'accord euh, de la professionnalisation de la danse ñu bëri wax ni la danse n'est pas trop professionnalisée au Sénégal pensez-vous la même chose. mais non c'est pas vrai quand on voit Germaine Acogny c'est une très grande dame qui a beaucoup apporté pour la danse africaine. d'abord moderne moom moderniser la danse traditionnelle codifier ko defar ko jusqu'à présent école du sable muy indi ay ay xale yu bari jóge Europe ñëw foofu di jàng mais je pense Germain Coly si ñi yóbbu danse traditionnelle fu mu yem Germain Coly si ñuy la bokk mm-hmm. Germain Coly normalement dañ ko war a dimbali si école de danse parce que c'est une dame courageuse, elle s'est battue, tout ce qu'elle a pu faire là, mais toute seule. Mhm. et j'en très sûr même qu'elle n'a même pas les subsides pour ça. Mhm. tey jii am na xale Suède ñu jógee Norvège ñu jógee si dans les sous-régions mu leen di mu leen de danse euh, traditionnelle de danse classique danse moderne ñu ñu def théâtre dans son école des sables. Mhm. donc ñoo ko li euh, monsieur Bousso ñu sentir ni tam duñ la dégg bu parce que lu ma politicien. technocrate nga. <laughs> non du ma technocrate artiste la. Uh-huh. xam nga euh, bu ma amee lu ma war a wax ma wax. Uh-huh. mais du ma toog rek di wax loo xam ne jarul may wax. Uh-huh. xam nga li nit ñi di wax yëpp mosul di président Macky Sall di wax di wax rek bu ku mbëw ba ba pare toog ñu def si beneen passé leen loolu la nit ñi def mais donc du man daal si si kaayoo laa nekk lu ma war a wax dama koy wax culture culture fu ma nekk nii xam nga li war a la culture sénégalaise mais politique am ñu gën a mën a wax politique ñoom mën nañu wax si politique mën mu wax si politique. alors culture culture parlons-en la culture sénégalaise noo ko gisee ça avance sur tous les plans. Bah oui mais bon il faut gisee les léegi certaines léegi Youssou des stars planétaires. yóbbu nañ fenn le vieux Rose il a apporté la musique sénégalaise doo xam ne euh, euh, chez les Esquimaux chez les euh, les Danois chez les Norvégiens en Chine au Japon mais ñooñu yóbbu nañu culture sénégalaise fu fu kenn culture sénégalaise donc mm-hmm. c'est c'est c'est important. Mm-hmm. d'accord alors monsieur Bousso vous étiez quel genre vous étiez quel type d'enfant vous étiez terrible ou réglo Non, mais je suis comme tous les enfants Halplar de Foutanké. Je suis né au village de Dungalaou. J'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études. Euh, j'ai choisi la danse. Quand j'ai choisi la danse, on m'a dit que j'étais un peu fou. Mais bon, en ce moment-là, c'est normal. Pour les faire danse, surtout, c'est pas, c'est la danse classique. Les gens, ils préfèrent avoir un professeur. Euh, mais moi, je suis fils unique. Mon père était chef de village. Mm -hmm. Je n'avais pas de, de grand frère, je n'avais pas de petit frère. Donc, j'ai choisi la danse. Mais mon père est décédé quand j'avais 6 ans. mais ma mère m'a laissé faire donc mm. euh, et en j'ai commencé à faire les restas en 79 ah, en 60 en 74 mm-hmm. j'ai commencé à faire mes restas et je les ai enlevés en 2012 mm-hmm. vous avez fréquenté quelle école j'ai euh, école primaire ou école secondaire le non j'ai fait mes écoles primaires à à à Dungalaw après ici à Dakar mm -hmm. après ici j'ai fait concours euh, de danse euh, à l'école des arts j'ai réussi Bon, donc après je suis parti à Moudrafrique était une sélection une école créée, par Senghor bon ma nekk foofu ah, on était presque cent et quelques personnes en trois ans on était onze et parmi les onze ñaar ñoo dem si ñaar ñooñu la bokk. Mm-hmm. Euh, quel genre de formation est-ce que vous avez suivi? formation il y a le théâtre il y a la danse classique il y la danse contemporaine le solfège le jeu théâtral mais quand tu sors de Moudra tu as presque une clé. boo fa génnee foo dem liggéey. tu ne peux pas chômer en Europe c'est pas possible. Mm-hmm. quand tu quittes Moudra tu as tout. si tu n'es pas un bon danseur tu es bon comédien si tu n'es pas un comédien tu es tu sors de Moudra c'est c'est c'est vraiment da nga yore caabi xam ne dana jox ay porte yu bëri boo ubbi fi bu bëri dina bu ubbeeku. ça c'est certain. Mm-hmm. Euh, monsieur Bousso ñu gis ni tam euh, ci wàllum théâtre ba léegi léegi y a beaucoup de téléfilms. bon en avant boobu d'après vous c'est c'est à quoi qu'est-ce qui en est à l'origine mais non xam nga xam nga àdduna bi day dox man du ma ne euh, àdduna bi dox xam nga wax naa la bu ñuy def danse il y a en soixante quinze soixante quatre soixante quinze temps boobu il y avait pas ça même si tu tu n'osais même pas dire que tu fais la danse classique c'était quelque chose aujourd'hui il y a des voilà ou la danse day évoluer day day dox gis nga Sénégal lu mel tey bu avant euh, mu ngi doxee tànk si mbedd yi amul ben oto bu lay kii mais aujourd'hui pour sortir même de Dakar il plus de 2000 voitures donc àdduna ji day day dox mais nit da ngay da ngay dox ak jamono. Mm-hmm. rek lu la mais àdduna non euh, c'est normal parce que nit ñi bëgg nañ ko. Mm-hmm. Ah? mais y a-t-il quelque chose à corriger là-dessus. est-ce qu'on peut corriger ça. dama dama la wax xool jour bële on était au ministère de la culture am benn xale bu jigéen fekk on était avec Wally Seck mais euh, comme sa morom la mais dafa gis Wally bugg photo mais elle tremblait c'est extraordinaire. Uh-huh. elle tremblait quoi je pense que même que kenn même chef am mënu ko bu gisee chef am du du du tremblé noonu mais il a vu elle a vu Wally mais c'est émouvant parce que daf ko bëgg parce que ça ça n'existait pas avant mm-hmm. mais kooku da doon da doon da doon lox mm-hmm. et ça ça m'a bon c'est c'est émouvant donc adduna day dox bon tey jii loolu mooy problème bi. monsieur monsieur Bousso mm-hmm. li ngay tudd Wally Seck bari na torop vous êtes des amis des relations professionnelles purement ou bien mais non il y a tout mhm. il parce que c'est quelqu'un qui est très poli mhm. moom ak Abdou Guité mhm. je peux dire Titi c'est des gens yoo xam ne euh, ak Pape Diouf c'est des gens yoo xam très polis ils font pas bu ñëwee si vraiment euh, comme papa ak doom la quoi. Mm-hmm. ah bu ma ko wooyee il m'entend il m'écoute mais il est bien aussi euh, li mu mun a am lépp deful lii quoi. Mm-hmm. li mu am lépp deful nii. Mm-hmm. mais j'ai d'autres artistes ñoo xam ne ñu ay dañu ñoo màggandoo ku mel ni Youssou Ndour on a fait l'école c'est c'est un pote quoi c'est xarit ah, en vraiment. bu ñu gisee dañ tooñ c'est c'est que ou bien Baba Maal ñuy beneen beneen beneen relation encore mm-hmm. ah c'est comme des des frères. Mm-hmm. des frères ñoo xam ne des frères de de de ñu ma doon ànd ak koñ di dox di di di di wékko ne ñooñu beneen beneen kii la ñi ay doom lañu. Mm-hmm. Euh, relation bi c'est différent. d'accord ok d'accord alors monsieur Bousso par exemple ñaari artistes bu ñu soxlandoo salle grand théâtre ñoom ñaar ñëpp bëgg ci prester le même jour nooy procéder. waaw président non ils font une demande. ils font une demande. bu bu nee bu ma sàmm ne dix la bëgg ma ma l'autre ne dix la bëgg la personne qui a donné le plus ku joxe ak comptam moom lay jox salle bi. ku mu munti doon. d'accord. tu fais ta demande mais de temps en temps la même problème sept personnes veulent les mêmes dates mais ku ku indi ku njëkk indi moom lañ jox. xaalis bi ñuy indi après fan lañ koy verser. yow lañ koy jox. <laughs> man kay duñ ma ko jox. <laughs> ah bah oui. <laughs> d'accord alors pensez salle comme le Grand Théâtre ñaar mën naa am fii Sénégal. Hmm? ñaar mën naa am même ñett na fi am Sénégal. Mhm. bu ko doon implanté tey jii géographiquement d'après vous fan lañ ko war a def. buñ ko war a def. Ah. ñu def ko Dungalaaw. moo lay gënal. waaw mais xam nga nit bu nekk je pense que buñ koy buñ koy def. Euh, lu mel ni Saint-Louis mën nañ ko fa def ah Saint-Louis mën nañ fa def euh, lu mel ni ay Louga mën nañ ko def mais fu am fu am culture euh, à Ziguinchor mën nañ ko def yooyu yëpp mën parce que c'est des zones culturelles yoo xam ne yooyu yëpp mën nañ fa def mais man lu may laaj man sant culturel bu ndaw laa laa bëgg pour Dungalaaw quoi pour ma commune. Mhm. pour tuuti quoi. <laughs> alors euh, monsieur am naa on va pas beaucoup longtemps retenir Qu'est-ce que vous aimez faire de vos journées Être au travail euh, Je suis au travail avec mes collègues et aussi ma la grande famille la Mm -hmm. euh, D'abord, tous ces gens-là qui sont, tous les techniciens mm-hmm. du grand théâtre, ils font du très bon boulot. Mm -hmm. euh, Jusqu'au mois décembre, il n'y a pas un samedi, un vendredi, samedi libre. Mais ils restent là jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Mm-hmm. Aujourd'hui, il a une soirée. Demain, il a une soirée. Il y a de Wally. Ils sont là jusqu'à 2h, 3h, 4 du matin. Donc ñoom la ñu la remercier pas Keysi Bousso. c'est eux qui font que le grand et c'est des professionnels. ak loo munti doon loo munti wax loo fi mën a indi gars yi rek ko. les techniciens et les personnels du grand théâtre bon quand je dis les techniciens tout le grand théâtre de la même les les les ceux qui gèrent les papiers mais ëpp importance mooy techni les techniciens du grand théâtre les gardiens du Grand Théâtre les vigiles du Grand Théâtre ñooñu ñooy Grand Théâtre pas Keïsi Bousso. Mhm. d'accord alors euh, euh, quelles sont vos sources de loisirs. man mes sources de loisirs ici de temps en temps les les week-ends je je prends ici ma voiture euh, j'arrive jusqu'à Richard Toll j'achète un beaucoup de thé du sucre je continue à Dungalaw le soir ma dem biir Euh, ma ma lekk ñiiri ah euh, jox ma soow ma naan gis sumay xarit mes amis d'enfance toog foofu plané ba leneen di ma ñëwaat parce que chaque deux week maa ngi Fouta. Quelle a été la plus belle expérience dans votre vie, dans votre domaine de travail? Bah, il y en a plusieurs hein. Euh, il y a, il y a plusieurs, il y a plusieurs, il y a plusieurs. Anecdote, peut-être? Euh... dem na benn élection bu ma gën a neex mooy que un jour ministre de la culture di fi ñëw li nga waroon def mais on nous avait dit ça un peu plus tard quoi pour benn festival bi foog na ñëw mais ce jour-là mes technicien ils ont fait quelque chose d'exceptionnel quoi je te jure ils ont tout réglé j'étais au Fouta parce que moi j'étais même pas au courant ba gars yi réglé affaire bi ba le ministre il était ébahi quoi waaw loolu de moom moom moom mu gën a neex si si li ma nekk yëpp. vous passez du temps souvent avec votre petite famille. de temps en temps les les mm-hmm. comme tout le monde comme tous les Sénégalais. Mm-hmm. les week de temps en temps on part au monsieur Bousso est polygame. non. Mm -hmm. une seule femme. da mm-hmm. tax ñaareel. Euh, ça non mais xam nga xam benn bi rek problème la boo jëlee ñaar na nga indi sa bopp problème. parce que kenn ki ma yoree doy na ma may na ma lépp lu ma am am naa ko. Mhm. je ne vois pas pourquoi même lu boo boo indee ñaari même lu mu doon def mun na ko bàyyi bañ ko def. Mhm. nga nekk ay problème ko ma indi lu ma créé des problèmes. vous ne des problèmes ah. bëgg naa li ma gën a bugg bëgg naa njar mais pas njaru njaru meew. mais ñeru soow laa bëgg soow bu ñu loolu laa gën a bëgg waaw. d'accord alors merci beaucoup. le dernier mot. mais euh, donc comme j'ai l'habitude c'est la fin de de tout je parler en pulaar. Mm-hmm. on vous le on vous le. merci beaucoup. on vous le conseille oui allez-y. wiide ah mi wiino ari e télévision mi ñaagaaki arde tan no mi haalani pulaar wiide mbiɗa salmina fuutankooɓe fulɓe wonɓe e aduna fulɓe wonɓe e diaspora wi ɗon ko ɓinngel mon seeri mon giɗo mon kiisi buso mhm. mo allah waɗi ɗo e grand théâtre allah jaara mon jaarama mhm. merci beaucoup fidèles téléspectateurs de la chaîne Rewmi TV lii lañ leen indiloon tey seen émission Rewmi People c'était avec monsieur Keïsi Bousso l'administrateur général du Grand Théâtre National de Dakar nii rek lay demee samedi incha allah ñu toog ak beneen star nekk ci showbiz bi waxtaan ak moom ci lépp lu muy def entre temps restez avec nous sur la chaîne Rewmi TV et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur nos chaînes YouTube et Facebook restez avec nous et très bon